ñu bàyyi presse bi taxaw rek ñu ñu ndànk rek Touba ndànk rek li ma bëgg a xam lu tax may wax ci yow te li may wax doo léegi amul na amuñu jël couleur photographe Touba ma delloo si leen xel yi dama bëgg ngeen delloo si xel yi dëgg la fii ñu ngi doon dund waaye dafa war a gën bi dund du dëgg tey bis bu champagne nga war a nga war a gën a sant ndax quel que soit alpha rek ndem ràññee naa la nu ma la mën a ràññee baax na li jafe rek mooy ma ràññee kon jàppal ni xéwal la ci yow ràññee ko ñu gën am na importance lool pour ngeen déglu ma tey xam ngeen fii xam ngeen borom pàcc bii borom ci turu mag wa du rek nis bu am lu mu làmboo muy bis bi di daje ku tedd ki ak Cheikh Ibrahima Fatimi mu dénkoon lépp bi muy jóge ci géej gi Gabon muy ni suñu Cheikh Anta donte bis yeeg semaine yeeg weer yeeg at yeeg lépp guddi yeeg bëccëg yi lu ci nekk la ca yiw mi ngi ci tedd ki moo ko moom waaye nag daf ci ay bis yoo xamante ni bii dañoo bokk yi ëpp aw yiw da ko tënk moom guddi yeeg bëccëg yeeg bis yeeg weer yeeg at yeeg semaine yeeg yëpp ak saison yi yiw yëpp mu ngi daje ci moom. waaye bu ngeen déggee tanzimul akbar di magal Touba ku xam na ni mooy ëpp yiw nisu Shahban noonu shahru Ramadan noonu rabiul awal noonu yooyu ñu koy tànn bis bii di sunu bis ma ne laa koy def ma ni def def ko suutaa defaat ko dee muy dee dee dee daaru Thiès Dakar ndax li ko waral la ko waral ma bëgg ñu delloo si xel yi la ma wax Cees rek moom lay ferri li fii nekk murid rek doyul nekk murid saadix rek doyul waaye mu idan saadix an wan nabilan la ku tëdd kii woon yoon wi noo war a gën a sant nun waa Sénégal noo war a gën a sant réew yëpp nun waa Afrique noo war a gën a sant continent yëpp ndax ki tax ak li tax nun ñëpp dañu wëlbatiku daf mu ak yàlla bu nu bàyyee ko ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Adama Rasoul puus ak tiiree nañu ko ko bàyyee wax naa fee te Thiès ni bu problème amatee ci Sénégal nu na problème warut a amat ndax jamono yii ñun ñëpp ku ne jàng jàngat nga ku ne jàngat nga damay bañ a détail waaye ku ne jàngat nga li xew ci senegal mu kersaan ñu bëree bëree bëree bëri pourquoi muy kersaan ñu bëree bëri ñun dañoo war a roy waaye waruñoo roy kenn. te mel na ni violence ak yu ñaaw mel na ni ñun noo koy rey mel na ni noo koy rey ñeneen dara jot te noo am ki noo am libéré yi mais fa lay sa yuy jibo sawaat ma gis bi safahatal fata al fa ba noppi ñun ñuy amal li ñuy amal fii ci réew mi te ku ne xam na ni ba muy soog a jóg daf ne xadd aqanil yow ma umbul ahli wal watan dara gàllankooruma lu dul bëgg sama réew ak sama ñooñu réew suma bopp te moom moo wax bil bishri kulla yawmi wa kulla shahrin wa aqudu xawmi te ku naa na ne moom buy jiida peuple am daf leen di yóbbu vers le bonheur vers le bonheur amarini nabiru an usariha bi annani malazun wa mafsawun fa fi kii darini fal yellus Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un nazi et dernier recours, et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. waaw ñun ñuy xewal li ñuy xewal fii ci su réew waaw mel ni dañuy toppandoo ña nga xamante ni bii dara gëmuñu ni après la mort leneen mën naa xew la vie éternelle dara jëru ko ñun ñëpp war a ruus mel ni dañoo jàngul Matlabul Fawzayni mel ni dañoo jàngul Nahju Nahjul Xadar nanu seetaat suñu bopp te delloo si xel yi te ñëpp ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mu gën fee yàgg te wér ak Cheikh Mouhamadul Bachir Anta ak sëñ Mountakha day def naa ne kenn du ko wax kenn ku ne gis nga situation bi ni mu demee ma wax ni nag. vrai état dëgg dëggi état day soutenir peuple da leen di yërëm état day yërëm ay citoyen état dafay fexe dafay fexe ba chaque citoyen sénégalais fa bu nekk mu nekk fa fierté la muy dund mu cay dund mu ko mu fa muy dund ak la muy na muy dundee mu koy def avec la paix peut-être ki ba mu ne nafante nii waaye daf caa teg ni fanfan liyal ixwaana man de jëriñ nga ma yow yàlla waaw waaye ñii di samay mbokk nag te buy wax samay mbokk sénégalais yépp la wax ak sénégalais yépp kenn génnu ci nga ma waaye jëriñal samay mbokk nafanten ngi fanfan liyal ixwaana wal axawaati wa fi na odduwaana doxal suñu digganteeg les aînés ku tedd ki dëgg la ca démb fayuwul waaye yàlla daf ko doon fayu anta la ji min hidal islami muntaqimun walin taqamta bima leftarta ya allah أخرج عبادك سرمدا من رحمتك ولتقم منهم بأبطان نقمتك ما تخون بكي ديمبو نياي ماني مان سوما نيخون كوما توج ماني كو تابي كي فايو ba ku tedd ki moo wax ne sama waay ku ko laal bu ma ñëwee sama bool de day dal ba noppi ma soog a rajo xew. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. isaani xiir yi la ma tàllal damay ko jeex ci yàlla ak yonent bi tey dundal lislaam dina yonent bi la mboolem yonent yàlla yi yónnee ñoo àndandoo ñëw ma jiite wàllu yi. yàlla nii def li ko soog moo ma jiital waaye man sama ahmadu nii laa jiital alastu bi rabbikum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 jaarale ci Aminata moom Mariama waaye attandu ko ngir dafa tëb moo tax mu jaarale ci Bouna Fall mu Thierno ñu ma dénk bii jamono ak ci bii xarnu dolli ko jumtuwaay yu yéeme yu kenn mës a am ndax damaa yéeme lu ma mës a jox nit lu koy nuru ci nuru ko rek la yem waaye du moom te du moom yàgg boobu dara yoo la fiy wax ma de dinaa def fépp nii laa leen wax lamb démb ca ñëpp xam nañ ci daan borom loxo bu sew bii wul te moo daan Zeyn Ahmadou suma yére yii moom laay wàññi bu ëllëgee bu ñu may fay na ma yore sama tur wii xam ne keneen ku ñu ko wooyee sama xel dafay def ci man doomu aadama yi nag yàlla moo leen may moo tax ma sañoon sa war a dafay fay jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf ma ko talibe ak ni ko Baara Fall waxe Baara soutien bi ma koy defal kuy defar loo di daal la demal ci moom. borom Touba jërë kañ ci ku dem bañu li la fañ bu boobaa ngay soog a sañ di sax mi mbaa. tabarakallah mani xadd fàtteel nga ba laa laa leen waxoon. netti li leen waxi bu tedd ki xadd ba def xadd laa. ci at